Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Class TV to English with Miss Saba. daleen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bi di English Class TV ngir jàng anglais jare ko ci wolof fànn ci ak Miss Saba. leçon bu am solo la am nag tey mu aju ci lan ci comme Ibrahima leson bi ñu amoon bi wees woon mu doon wax ak manager bi bii nag Ibrahima moom moo ñuy wax moom mooy kan ci programme boo xam ne nag dina la dimbalee maanaam nga a déglu bu baax comme ni nga xam ne la ko américains yi di waxee wala ni ngay miin di déggee ñu koy waxee bu ñu dégloo loolu ba pare ñun danañu leeral bari yi allah ci wolof. ok nañu déglu reading bi muy leçon boo xam ne daf ñuy gën a dimbali tim ñu improve ñu gën a defar suñu wàllu reading gannaaw bi nga xam ne def nañu listening carefully ok. I'm Ibrahima. I work at Amazon. I start my day early. First, I eat breakfast, then, I go to work. At Amazon, I pack and send boxes. I work with many people. We all work hard together. At noon, I take a break. I eat lunch and talk with my friends. After lunch, I go back to work. I check the boxes and make sure everything is correct. In the evening, I finish my work, I go home and relax. I like to watch TV and spend time with my family. At night, I eat dinner and go to bed. I am happy with my job at Amazon. ok lecture boobu nag gaaw na waaye dinañ ci jaaraat ñun ci kom nga gis ko hi I am Ibrahima I work at Amazon I start my day early. First, I eat breakfast. Then, I go to work. At Amazon, I pack and send boxes. I work with many people. We all work hard together. Hi, man la wala maa ngi nuyu I am mooy man la Ibrahima I work at Amazon mooy Amazon laa di liggéeyee ma wax la sama bis bi lu may liggéey mooy I start my day early damay teel a commencé liggéey maanaam sama bis bi dama ci teel a jóg first li jiitu ci li may def mooy I eat breakfast damay ndekki foofu nag bul wax damay lekk ndékki donte ni eat mooy lekk waaye eat breakfast buñ ko waxee mooy teg breakfast mooy ndékki ci boppam then I go to work teg ci ma dem liggéey at Amazon ci Amazon daal bu ma la waxee ni ma fay liggéey mooy I pack and send boxes pack mooy comme danga naan damay defar damay bokk si ñuy organiser bagage yi bokk si kees yi seen boxes ba léegi nga ne mën naa bokk ci ñi nga xam ne ñooy def delivery mooy ñiy yónnee bagages yi I work with many people damay liggéeyandoo ak nit ñu bari nag we all work hard together ñun ñëpp ñooy àndandoo di liggéey liggéey bu métti nag work hard bu ñu ko waxee mooy liggéey bu métti at noon ci bëccëg gi mooy comme bu di jotee I take a break damay noppaloo take a break mooy noppaloo jamono bi nga xam ne moom ngay am pause loolu mooy take a break wala take rest I eat lunch and talk with my friends après damay añ eat lunch ba léegi buñ ko waxee mooy have lunch wala mooy take lunch and talk with my friends mooy ak di wax ak samay xarit bu dee ni my co-workers mooy ñi may liggéeyandoor bu dee ni may boss muy sama njaatige maanaam I eat lunch and talk with my co-workers wala and talk to my co-workers ni nga xamee ne nga gisee fii ci texte bi muy and talk with my friends ak wax maanaam waxtaan ak samay xarit after lunch gannaaw ba nga xamee ne añ nañu ba pare wala gannaaw añ bi wala nga ne bu añ weesoo after lunch ay go back to work oh damay delluwaat ci liggéey ba damay demaat ci liggéey ba di du wàcceguma I check the boxes and make sure everything is correct I check the boxes mooy damay yër ma dem saytuwaat ma dem xoolaat ma dem gëstuwaat nag box ba xam ni ma leen defaree woon wala nañ leen defaree woon noonu la baax na ba mu wóor ma ne lépp normal na maanaam ay make sure fexe ba gëstu ba xamtu ne leer na ma ni everything is correct lépp daal baax na everything is good lépp baax na everything is fine lépp baax na everything is alright lépp baax na everything is ok lépp baax na ok and make sure everything is correct ba mu wóor ma ne lépp daal baax na yi nga xam ne laa doon def package wala laa doon pack ak yi nga xam ne laa doon send wala laa doon ship ba mu wóor na ma lépp baax na bu ma weesoo loolu in the evening ci ngoon ci nag moom I finish my work damay pare ci liggéey bi fekk na ma wàcc di ma jeexal liggéey kay mhm. bu boobaa nag wala gannaaw bi loolu weesoo ay go home and relax damay dem kër ga ma noppalu ma dalloo nag mhm. kër ga de I like to watch TV ak ma bëgg sax di seetaan télé man dama bëgg di seetaan télé de and spend time with my family ak bokk ak sama famille maanaam ñuy bëggee spend time mooy dépenser temps mooy maanaam joxe temps ak spend time with my family maanaam ma toog ak sama famille bi ñuy waxtaan ab diir loolu dama kaa bëgg. at night ci guddi gi nag moom I eat dinner and go to damay reer fii tim ba léegi eat dina la ñuy wax waaye mooy have dinner wala mooy teg dinner maanaam at night I eat dinner ci guddi gi damay reer. and go to bed ma dem tëddi nag bu ma la waxee daal mooy I am happy with my job at Amazon ak sax te ma kontaan ci sama liggéey bii may def ca Amazon neex na ma de yaa ngi bàyyi xel bu baax wala bàyyil xel bu baax yoon bi nga xam ne nga njëkk dégg ñu liir ko dee ko déglu lu bari ndax moom ngay gën di dégg ci ñoom accent boobu moom ngay gën di dégg ñuy wax ak yow wala mooy tax boo koy gën di dégg di ko gën di déglu ba léegi dina la dimbalee ba boo koy wax dina yomb ci yow ba pare pour nga comprendre nga pour nga comprendre ko nag bu dee yaa ngi wax wolof mënul ñàkk nga déglu leeral yi nga xam ne laa ci def leeral itam ci ni ma koy waxee maanaam dama lay gindi rek ci cadre boo xam ne mooy tax yow nga jëli lan la jublu ci baat yi am na yoo xam ne nag mën naa am xamoon nga ko avant muy before waaye am na yoo xam ne mën naa am yaa ngi nii da ko xam mooy tuddee nga ko xam muy tey nga ko xam loolu moo nekkoon leçon bi ñu amoon ak yéen mu aju woon ci wàllu improve our reading améliorer jéem a defar suñu wàllu lire suñu wàllu lecture bi ngeen àndoon ci ak Miss ci seen YouTube bi di English Class TV thank you so much bye.